combat bii la ki nga xamante ne mooy Momo production taxawal dox ci diggante Boy Jules ak ki nga xamante ne mooy R5 Boy Jules la ñu taxawal nii. Boy Sine macha allah Boy Sine ñoom boo leen gisee doo laaj jaana mbër mi tubaarkalla macha allah mais Boy Sine ñu lay ziar. waaw maa ngi di fay di wax ne onze billah bisimilah inna wala yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba waaw. tey yaa ngi jàkkaarloo ak sa adversaire laka nga koy wax ak loo waaw li ma ko wax bëriwul wax ni xam nga làmb ji le 20 bi la waroon nekk dañ ko tuxal ba le 17 décembre 17 décembre presque soriwul di ko wax na waaj rek te xam ne am na combat bu baax a baax làmb ji lii muy def nii ay galaaj ay wane yeeg yooyu du foofu affaire fii la incha allah bar bi sifflé doyu ma sax galandiku maa ko dàq bëri maa ko doole maa ko dàq xeex en tout cas loo ci dégg ay adversaire de taille genn loo koy indil 17 décembre waaw loolu moo tax mu war a neex incha allah adversaire de taille man ak waaw ñàkk adversaire moo ma boole ak moom jox nañ trois personnes la jor moo njëkk a jël sama avance delloo ko booy Sadio delloo sama avance moom moo ko jël incha allah te dina ko coûter cher incha moom jël na ko te jëlu ko pour daanu dafa ñëw jël ko pour corriger la. da koy jël da koy jël pour daanu incha allah waaw kii mënu maa corriger. non jël pour daanu day daanu incha la wax tey adversaire. rendez-vous di ko wax samay adversaire di wax samay adversaire yëpp. di woo Doro Gueye Séri Kalara maa ngi woo bu baax baax Doro Gueye doomu nday Ndoye maa ngi koy woo ci combat bi di woo La Diop bu baax a baax a baax mu ñëw jàpp ci combat bi La Diop doomu nday Yirim maa di woo waa Parcelles yëpp di woo Xaarim Gaye di woo Amadou Ba di woo waa Parcelles di gërëm suma mafia bi ay Mor Ñeeño Tafa Diaw Gora Diaw Kéman Diaw Papa Diagne Pa Diaw di gërëm suma mafia bi di woo sama waa koñ di woo Kéman di woo waa Touba waa Diourbel di woo sama mbokk o ma ngay sim naanum o foogee séeréer nga combat leen. ñu ngi lay jaajëfal. waaw a baax. naaw ma sant yàlla jul ci Mohamed sant sama ñaari waajur dama naan aujoubila bismillah ina wan yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jaaraama alxuraan ñu koy ñaanal lu yaa fi téewér di ñaan suma yaay yàlla na fekke suma njëriñ suma yaay yàlla na fekke suma njëriñ ak yaayu ñëpp waaw maa fay lu tax adversaire bi nga jël ko nee na ñëpp delloo nañu awaasam yow nga ñëw jël awaasam lu tax nga jël ko waaw nee naa ko boobu daa egsiwul ci këru dof bi waaw boo fekkee ñu xiif mar ngeen di leen lekk lekk boobu du génn kër waaw loolu la demee quoi. mais moom dene dafa pare pour corriger la a parce que li tax nga ñeme ñëpp bay fi nga jël pare la pour corriger la awale la sa man xale laa 97 laa judd xale bu ndaw laa. kii 2011 la ñëw ci làmb man 2019 2020 laa ñëw si làmb yaa may dégg daa yàgg si yoon bi na ma abal rek ma dem. waaw man dama war a nekk roi des arènes kii du moo mag man ñi ma war a bëreel du ñii kii ci yoon bi bokku rek dama siy jaar dem waaw. nee na la 20 yéen war na bëree mais pousse nañu ko ba le 17 décembre le 17 décembre nga ñëw rek mu confirmé. ba le 17 décembre. waaw ba léegi lépp benn la rek sotti sees def si la rek barki Seydina Mohamed lu mu gën a yàgg mu gën a métti si moom man xale xale bu ndaw man maa ngi suñu caatu damay dem réew laa roi des arènes laa signé ak ñoom comprendre kii dafa bokk si yoon bi dama ko waxoon dama koy waxaat dafa bokk si yoon bi voilà. man daal pare pour lépp fi mu toll. Ah, man laa pare naa pour tous les côtés. kii maanaam su lu ma woo dama ko si war a wuyu te duma xaar may woo si lenn maay diriger maay ñëw maay jël maay dem ñëw jël la rek ñibbi comme dab ni mu fi demee woon fii mi waaw kon rendez-vous le 17 décembre. waaw le 17 décembre xam maay woo àdduna di woo Diamaguène di woo diaspora bi ñëpp xam nga li ma lay expliqué di sant nag sama kilifa yi ma fi àndal ku si mel ne suma mag Omar suma mag Pape góor gi xam nga ñoom ñoxor Elzo ak booy fee ay Palaye Gueye Youssou ñoom ñaa xam ne rek Issa sama sauveur xam nga li ma la ñoom ñëpp maa ngi koy maa leen di woo ñoom ñëpp xam nga di leen wax rendez-vous bi la 17 décembre la saa lu mu gën a yàgg mu gën a sama benn jarbaat day tax jabar suba buuba ah buuba waa ñu ngi lay suwee da xam nga rek si li nga dugg nii. jaajëf waaw jaajëf.